تركت ما كان لي ñoo ngi leen di nuyu bu baax nuyoo bi nag ñu ngi koy def ci turu Serigne Mamor Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada Serigne Mamor Mbacke njiital université bi ñu duppee université Cheikh Ahmadou Bamba du UCAB UCAB di université boo xam ne création Serigne Mamadou Mbacké la mu am lu toll ci fukki filière ak ñett nekk Ndakaaru nekk Bambey nekk tuuba nekk Saint-Louis mbokk ñu leen di nuyu fii ci lenn ci banqaasu université Cheikh Ahmad Bamba di groupe de communication université Cheikh Ahmad ci biir rajo bi ñu duppee UCAP FM 103.5 mbokki kàddu yi ñuy yëkkati nag dañu koy yëkkati ci ndigalal Serigne Mamor Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu université Cheikh Ahmadou Bamba li waral kàddu yi nag ay kàddu leeral la ndax dafa am benn waa joo xam ne nii dañoo gis ci page Facebook am mu wax cursus am wane ne université Cheikh Ahmadou Bamba la jànge te université Cheikh Ahmadou Bamba benn la c'est sécurisé label boobu kenn rek moo ko mën a am muy ma moon Mbacké gannaaw bi mu amee droit yi nga xam ne moo koy may kenn amatul sañ-sañ tuddee sa université université Cheikh Ahmadou Bamba kon bu ñu demee ba jëmmi jamono gis koo xam ne nii dafa posté ci page Facebook ne UCAB la jànge jar nañu indi ay leeral ne kooku de mësuta jaar UCAB loolu benn point la beneen point bi ki ñuy wax ñëpp gisoon nañ ambulance yi nga xam ne dañ koo indi fii ci màggal gi ñu ne benn mbokki tali bi indi na fi ay ambulance yu bëri mettre à la disposition du khalife général des mourides yaakaar naa ne gis nañ ay video yoo xam ne nii introduire nañ ko ci biir kër xalif général des mourides am na image yi yéen a ngi koy gis nii waaye it porte parole bi recevoir na ko waaye li ñu xaw a jaaxal rek mooy dañu jot ay information yoo xam ne nee nañ kooku du médecin te day wax ne médecin la du urgentiste day wax ne urgentiste la lenn rek moo xaw a troublant ci mbir mi ku am capacité doonub docteur am capacité mobiliser ambulance yu tool noonu indi ko Touba am capacité ñu introduire la ci biir kër xalif Jean des Mourides ngay nuyoog moom nuyoo bii nga xam ne day mel ne familiarité moo dox seen diggante ngay wax ne da ngay indi ay ambulance ci dëkk bi ngir màggal gi mbokk yi te mbooleem ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu wér-gu-yaram gi fii yëguñu ko district sanitaire bi yëgu ko li ci gën a yéeme it jox nañu ay information yoo xam ne nii dafay wane ne mës naa am sax ay antécédent ci barabu fajukaay bu mag bu ñuy duppee fii mat la bul Matlaboul Fawzeyni waaye li nga xam ne moo concerné Serigne Mamour Mbacké te mu ne loolu moom nañu ko weddi ba mu set wecc mooy page Facebook am bi nga xam ne daf ci posté ne université Cheikh bambala Bamba la jànge 5 décembre 2017 jusqu'à aujourd'hui noonu la ko bindee daa di bind ne travail chez Bëgg Serigne Touba 5 décembre 2004 jusqu'à aujourd'hui nee na auparavant balaa loola nekkoon stagiaire en service de chirurgie orthopédie Antoine bu Paris 1er mars 2004 4 juillet 2004 nee na it scolarité ñëwaat na ci à étudier à université of Cheikh Ahmadou Bamba promotion 2015 MBA yi nee na moom la fa amee ñëwaat université Cheikh Bamba chirurgie la fa jàngee nee na nee na Malick Sy high school Thiès 96 98 et cetera et cetera ah moom nag boo xoolee ay turam nee na mu ngi tudd Chérif sëriñ Chérif Fall ñenn ñi di ko wooyee nee na Chérif bu Soxna Jaara ñenn ñi di ko wooyee Chérif moom Soxna Jaariyatullah Mariam ñenn ñi di ko wooyee prince du Kayor loolu ci page Facebook am la ko fekk inventé wuñ ko capturé nañ ko bu yàgg sax xam naa bi mu déggee cool yi du ñàkk xëy na dina ko dindi léegi nag Serigne Mamor ak ñi nga xam ne ñooy kàngam yi nga xam ne ñoo nekk ci université Cheikh Ahmadou Bamba nee nañ xamuñu ko mësuñu koo gis loolu benn aspect la ñaareelu aspect bi am nañ treize filière waaye faculté médecine. amul université Cheikh Ahmad Bamba loolu rek lu garaaw la déli la kilifa yi nag ñoom responsabilité yi ñu ci war a jël ñu ngi koy jël dajale nañ ci preuve yi nga xam ne yor nañ ko ci yëpp ba ci information yi nga xam ne jox nañ ñu ko ci du médecin du sax infirmier yooyu yëpp nag ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa université Cheikh Ahmad Bamba yaakaar naa ne jël nañ seen matukaay yi tax ñu leeral mbir mi ngir ñaari yëf santé du caaxaan nan la nit mën a jóg drainer fi lu toll noonu ci ay ambulance mu jóge bitim réew wàcc ci réew mi traverse réew mi yëpp ñëw ci biir tubaa ci événement bu toll ne màggalu tubaa ne daf koy indi mettre ko à la disposition du ministère de la santé xaw ma ndax ministre bi yëg na ko waaye ñi nga xam ne ñoo yore district bi fii bi ma leen laajee dañ ne yëguñu ko réceptionné wuñu ko kon ndax nit bu ñëwee ci domaine bu sensibiliser nu bu sensibiliser noonu ci wàllu santé ñëw ci dëkk bi nga xam ne c'est la deuxième ville du Sénégal ñëw ci événement xam boo xam ne événement mondial la li fiy daje ci ay doomu aadama moo ëpp lay daje Màkka ñu permettre ko mu dugal fii autant d'ambulance te ñi nga xam ne ñoo ŋànk wér yaram gi fii yëguñu ko ñu permettre ko mu am affinité ak introduction bu yomb boobu ci biir kër Serigne Touba te ñi nga xam ne ñoo yore wàllu santé yëguñu ko beneen information bi topp nañ ko gis nañ ne am na clinique bu nekk fii ci mbal clinique bi ndax am na autorisation clinique bi kan moo ko introduire ba mu mën a samp clinique bu mel noonu jël tur bu méngoog tur bu clinique bi nekk fii ci Daaru Minam mu mel ne confusion dafay am foofu waaw mbokk yi bu démenti bi nga xam ne moom la sëriñ ma moor santoon ma ko ma weddi ko ci kanamu ñëpp defee ko ci biir UCAB FM wane ne kii di tuddoo Serigne Chérif Fall ne UCAB la jànge musu fee jàngee ñaareel bi UCAB amul faculté médecine laaj bi nag mooy ñi ko war a laaj mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko teeru woon ba dugal ko ci kër sëriñ bi ba gis ngeen image yi ndax médecin la ndax du médecin lu tax ñi nga xam ne ñoo ŋànk wér-gu-yaram gi fii yëguñu ko loolu nag yaakaar naa ne laaj la boo xam ne élément yëpp buñ ko tegee fi ñu ko war a teg ñi ko war a tontu dañ ko war a tontu waaye daal bu nit indeetee loo xam ne nii am na ñoo xam ne ñoom la concerné ci dëkk bi nañ ko yëgal ñoo ñu teg ko ci seen loxo ndax nit mënul ñoo ñëw dugg ci dëkk bu toll nii ci événement bu toll nii di yëngu ci wàllu wér-gu-yaram te ñi nga xam ne ñoo ŋànk wér-gu-yaram gi yëguñu ko loolu nag yaakaar naa ne eh, fa lañ mën a yem ñun li ci des nag ñi nga xam ne ñoo yore wàllu kaaraange yaakaar naa ne ñoom seen wàllu ñu ngi ci te ñu ngi ci enquête bi laaj nañ it régional bi nee na yëgu ko bu régional bi yëgul district bi yëgu ko kan moo ko yëg kan moo ko dugal ci kër sëriñ bi kan moo ko permettre mu dugal autant d'ambulance kan moo ko permettre sax mu am clinique ci biir dëkk bi te ñi nga xam ne ñoo yore wàllu santé yëguñu ko loolu nag mooy assainissement bi nga xam ne war naa am ci dëkk bu sell bi di Touba waratuñu bàyyi n'importe qui mu ñëw di def n'importe quoi ci dëkk bi di Touba loolu moom jaaduwul kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm information yi ci des nag dañu koy jébbal ñi nga xam ne ñoo yore wàllu yoon ak ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk dëkk bi li ci des ñoom ñoo koy dox ñun liñ mënoon booy topp nañ ko ba lii lañu am lii dëgg nag loolu ña koy wax ñu ngi fi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp jërë ngeen jëf